résultats yi naka la demee foofu Dieynaba ñu ngi lay nuyu. Ngoné maa ngi leen di fay bu baax. waaw résultats yi génn na. waaw résultat yi finalement génn na sànq. Mhm. fi nga xamante ne mooy HLM Grand Médine. Mhm. Euh, comme ni nga ko waxee rek fi nga xamante ne moom la Amadou Ba euh, voté euh, moom nag mu ngi voté ci bureau numéro huit nombre inscrit bi mu ngi tolloon ci cinq cent soixante six. Mhm. ñu voté nag am nañ ci deux cent cinquante sept Euh, ci même bureau boobu aussi am neen fa benn bulletin nul nombre ñi nga xamante ne ñoom ñoo inscrits hors bureau aussi am neen ci quatre donc mhm. valablement daal exprimé deux cent euh, cinquante six la mhm. ci boobule bureau nag Benno Bokk Yaakaar mu fa am soixante quatre voix mhm. Yewwi Askan Wi am fa cent soixante dix voix serviteur am fa cinq voix wàllu am fa sept voix buntu bi am fa deux voix naataange zéro euh, Benno Bokk Gis Gis moo fa am trois voix mhm. waaw ci même centre bi aussi euh, nemmeeku neen ki nga xamante ne moom moo nekk tête de bu Yewwi Askan Wi mhm. muy Malick Kébé euh, moom itamit mu ngi voté rek ci bureau trois mhm. bureau boobu nag mu voté am neen fa nombre inscrit cinq cent soixante cinq nombre votant mu ngi toll ci deux cent quatre vingt deux comme nañ leen ko doon waxee ci suba ci rek gars yi ñëwuñu pour euh, voter ci parce que boo xoolee dafa am différence bu bu mag sax. Mm-hmm. alors euh, valablement exprimé ci voix yi ñu ngi fa am deux cent quatre vingt et un. d'accord. waa ci bureau boobu noonu aussi yeewu askan wi yeewu askan wi am na fa cent quatre vingt deux. Mm-hmm. maanaam moom moo gagné ci bureau bi nga xamante ne fa la voté. d'accord Benno Bokk Yaakaar daal di fa am soixante treize. Mm-hmm. waaw yeneen aussi yu fa des ku ci mel ni alternative am na fa moom itamit quatorze voix. d'accord. waaw maa ngi leen doon wax aussi ci suba kii di Thierno Bocoum. Mhm. bu Aar Sénégal moom itamit ci même centre bi aussi la voté. Mhm. Euh, moom itamit ci mu ngi voté ci bureau numéro cinq. d'accord. nombre de votants am neen trois cent treize nombre inscrit bi cinq cent soixante six la woon. Mhm. donc bulletin nul bi zéro la. alors foofu am neen fa yeewi askan bi euh, cent quatre vingt onze mhm. Benno Bokk Yaakaar quatre vingt neuf mhm. serviteur am fa dix wàllu am fa dix moom itamit alternative am fa neuf voix mhm. naataange aussi am fa trois bunt bi am fa sept voix Benno Bokk Gis-Gis euh, moom zéro voix lañ fa noté voilà loolu daal lañ fi jotagum am boo xoolee daal boo koy gula gula booy def kii bi nombre total bi ci bureau ya parce que di bureau lañ fi am ñi nga xamante ne ñoom ñoo nekk Yewwi Wi ñoom ñoom ñoom la ñu gis ne ñoom ñoo fi jiitu fii nga xamante ne moom moo nekk école primaire bu HLM Grand Médine kon nañoo jàpp ne itam euh, Amadou Ba euh, bureau de vote am wala centre de vote am dañ ko fa dóor effectivement parce que mu ngi voté euh, bureau huit te Yewwi Askan Wi da ko fa rowee ay voix yu bëri sax Mm-hmm. jërëjëf euh, Dieynaba euh, muy résultat yi nga xam ne rek comme ni doon xaar foofu la ci HLM Grand Médine waaye tamit euh, fi nga xam ne moom mooy centre de vote Malick Fall nga xam ne Benoît Sambou fa la voté ci Ziguinchor foofu yi tamit Yewwi Askan Wi moom moo jël raw gàddu gi mu mel ne nag Fadel comme ni ñu ko waxee woon Mimi Touré ci Kaolack bu ñu sukkandikoo ci résultat yi nga xam ne def nañu ko foofu daal nañu ko fay dóor Bamba Fall bu Médina moom it daal di yeewi askan wi jënd ndam li ci kawam Amadou Ba comme léegi ni ko Dieng ba waxee moom itamit euh, daal di nañu koy euh, duma Abdou Karim Sall tamit euh, même chose mun nañu ko waxee noonu Mansour Faye ci Ndar daal di nañ koy dóor moom tamit Mame Boye Diao ci Kolda Racine Talla ak Néné Fatoumata Tall mi nga xam ne léegi rek.